waaw sëñ Modou mm-hmm. tey nag dama ñëw ci sóoratu taxaabuni mm-hmm. sóoratu taxaabuni macha allah waaw mm-hmm. saar la bu baax ci kaaraange kaaraange uh-huh. troisième édition journée sant ak tudd yàlla sunu borom subhaanahu wa taala Serigne Malick Gueye mu baax mi di ko amal foofu ca Kër Mbay Fall mu ne nag at mi jàpp nañ ko dimanche 28 avril 2024 bi ca Kër Mbay Fall mu ànd ci ak cabinet Sajaratu Touba grup whatsapp bi rawatina mbokk yi ak soppi yi ñu sant ak tamit tudd yàlla sunu borom subhaanahu wa dimanche lay doon ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril bii 2024 bi ca Kër Mbay Fall ñu sant ak tudd yàlla sunu borom mu ne ma nag programme bi nii lay tëddee fukki waxtu bu jotee jàpp midi daañu amal njàngum alxuraanul karim midi jàpp ñaari waxtu ñu siikër turu yàlla ñaari waxtu jàpp ñetti waxtu ñu amali ay xéewal maanaam bernde gan yi ñeent jàpp juróom-ñaari waxtu ci ngoon gi ñu waxtaane nag ci xam-xam ñaan yàlla sunu borom mu nangul ñu bépp ñaan kon mbokk xarit yi troisième édition sant ak tudd kaddu yàlla sunu borom Serigne Malick liggéey ànd ci ak képp koo xamante ni da ngaa nekk ci cabinet Sadiaratou Touba rawatina sunu groupe whatsapp di ko amal dimanche 28 avril 2024 bii foofu ca Kër Mbay faal képp ku ci bëgg a am leeral mun nga wootee ci 77 539 19 04 77 539 19 04 mbokk yi xarit yi rawatina mbokk jullit yi ñëw leen ñu sant waaye tamit tudd yàlla sunu borom yeey mbokk bu ko kenn wuute. الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم jërë ngeen jëf mbokk yi yi nga xam ne yéen ñu topp di ñu seetaan euh, ci télévision bu mag bii di Sadiaratou Touba TV ñu amati mbégte ak kontaante àndaat ak yéen ci beneen jotaay jàkkaarloog Serigne Malick Guèye borom na ñëpp am ñëpp xam euh, di borom xam-xam bu mag waaye tamit di nit ku yàlla baaxal tey nag ñu fas yéene waxtaanee nag euh, njëriñ yu bëree bëri xam naa du ma guddal dama ko jox rek mu nuyoo ak mbokk yi su ko defee rek ñu mën a dugg ci biir waxtaan wi. sëriñ bi ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi lay dalal nuyu bu baax sëñ Modou wa a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi alquduusu fi xaybil haahut almutajalla bil asmaa wa sifaat fi xadratil laahut almaabudu fi aalami malakut waljabarut wannaasut wasalaatu wasalaamu ala man basarat fi atil xams wa kullu man amana bihi min al jinni wal ins sëñ Modou ñu ngi lay dalal nuyu bu baax a baax a baax hmm. di nuyu mboolem mbokki internautes yi nga xam ne ñu ngi suivre Secret Touba hmm. ci TikTok bi wala ci YouTube bi wala ci yeneen bërëb yi incha allah taala macha allah mu ngi noonu ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci nuyoo bu tedd boobu euh, ginnaaw ay fan nag xam naa ne fan yi moom euh, jotaay xaw naa kii waaye nag liggéey bi rek ko waral. Hmm. bu ko defee sëñ bi ñu wax ci li nga xam ne mooy produit yi. Hmm. am na càngat boo xam ni bu am solo la. muy retour à l'envoyeur. lan mooy njëriñu càngat bi. Euh, sëñ Modou retour Euh, mu lay arab yi rujon an yetti suu waaw mhm. euh, yi ñuy wax retour à l'envoyeur ak ñag yi <laughs> euh, bu bon mhm. delloo liñ la sànni xam nga tey bu la nit sànni woon tey lu bon mhm. tey nga romboon rek nit tifli la xam loolu genre déstabilisation la dëgg la léegi su boobaa yow da daal di am automatiquement rek pour tifliwaat ko <laughs> su ko defee bu dee ay pànk ngeen ngeen jaxasoo dóorandee gur faj mhm. kasaalika nit mën na la tuuram saw mhm. automatiquement yow boo amee saw da nga koy tuur da nga koy def uh-huh. moo tax nag ci comme tooñkat yi dañoo bëri mhm. jamono yi jamono yi tooñ lañ nekk dëgg la gars yi dañuy tooñ rek dañuy tooñ wallaahi te da gis koo xam ne deful daara mu ngi jàpp njàmburam di liggéey nga gis tooñkat bu ñëw fee ne ko sa liggéey dootul dox waaw ah, su boobaa nag yow yaa am sa ful ak sa fayda dëgg la def retour à l'envoyeur mhm. retour à l'envoyeur bi nag sëñ Modou du caagi ne benn yoon bi rek la mhm. maanaam ki la sànni dara déedéet càngat gi sëñ Modou moo nekk nii moo ne ci mbuus moo ne ci mbuus gi mhm. ànd ak sunguf yi est-ce maanaam boo ko sangoo par guddi rek nga koy sangoo par guddi rek par guddi mais boo ko sangoowee ba mu xasee jàpp sa yaram maanaam jàppal ne tooke nga sa yaram est maanaam lépp lu la waay sànni rek mu dellu ci moom tubarkàlla. xam nga loolu am na solo. Uh-huh. xam nga léeg-léeg ngay dindi ay njabar baax na trop. Mm-hmm. mais koo xam ne luñ la sànni mu dellu ci kawam boobu moo ëpp doole. moo gën a noppale sax bu yàggee gars yi dañ lay ragal. Uh-huh. <laughs> ku jéem ci maanaam mu loolu dal ko. Ah, yow sëñ Modou. Mm-hmm. boo ñëwoon nga ne sëñ Malick Guèye dama ko yéene mu ñàkk. Mm-hmm. mu amati dara. ba nga def say pexe ba sànni ko ko. Uh-huh. ba nga gis ne sëñ moom torox na fi ne tot. Mm-hmm. li nga buggoon am nga ko mu laal retour à l'envoyeur affaire bi delluwaat ci yow. transmettre ko ko. <laughs> yow tam nga daal dukk rek. wallaay est-ce que bu yàggee dañ ko defaat. déedéet hmm. te keneen ku nar a ñëw si daan ay diw ba mu ko laalee dootu ko defati. <laughs> léeg la nga gis koo xamante ne naan la kii dafa dafa am gàllaaj. kenn du ko laal kenn du ko laal. Hmm. parce que loo ko sànni day delluwaat ci sa kaw. wallaahi. loolu loolu yooyu moo moo jaragul. loolu am na solo. léegi nag yooyu sëñ Modou. Hmm. liggéey bu bu xaw a jël temps la tuuti. Euh, moo tax moom souvent par commande lañ koy liggéey nekkul lu ñuy liggéey di ko teg. dina fi am nag naam léeg-léeg nga ñëw fekk fi benn. wala mhm. ngaa bari ñaar mais li ci ëpp daal balaa muy def semaine di ci jot. sur commande daal sur commande lay doon. macha allah su moom. Mhm. mbóot mbóot mi dëgg dëgg mhm. ñu ngi koy liggéey ci suratu tawba. suratu tawba. waaw tawba ñi ko xam dëgg dëgg sax xam ne am na yoon boo xam ne tey jii. boo ko jàngoon jàng rek waxuma a dara am yoon boo xam ne boo ko jàngee woon. Mm-hmm. ba pare say noonu yëpp alku est mooy saar bi nga xam ne amul bismillah rahmaani rahim ci alquran. waaye mm-hmm. baala tàmbalee baraatu minallahi est-ce euh, nga xamante ni dafa bëri ay mbóot. 129 uh-huh. aaya la waaye dafa nuroog latif nuroog lu lewet waaye lewetul de. est-ce tawba <laughs> tawba <laughs> macha allah. su ko defee kooku sëñ Modou ñu ngi koy liggéeyee 165000. Mm-hmm. sëñ Modou man nag samay wax dafay leer gis nga nit. Uh-huh. boo ko dee topp di déglu ay waxam. ñaar mooy mën a am li mhm. ñuy wax daf lay intéressé nga déglu ko mhm. nga am njëkk dem wuti ko dem uti ko uh-huh. wala li muy wax intéressé wu la nga zappe jël sa xaaj denc sa poos dëgg la hmm? mhm. waaye yow jëndoo bàyyi woo nekk ci tiktok bi wala nekk ci youtube bi di saboté ak bind yu kenn xamul wallaahi gis nga Modou àdduna moom àdduna kenn mënta fexe waxa waxa waxa wax ba nit ñi duñ ñaanlu. dëgg la loolu moom sëñ Mor ku koy jël ku maanaam ku dee euh, da ngaa jël yoon boobu maanaam <laughs> maanaam da ngay def da ngay da ngay jihaat nee nañ gars yi duñ jihaat lañ ko tuddee. jihaat ñu def uh-huh, uh-huh. loolu. kooku moom mbéy ba nga teel a jël sa jihaat teg ko fee tax jihaat du dox. dëgg la fi lañ ko fekk de. Mm-hmm. benn waaye gisoo ko am na ku ma daan gis mu daan gàddu ay ndomba sa waay transporté ay ndomba ci benn oto. <laughs> nañ day tekki ndomba gaa yi. est-ce que. <laughs> waaye moom saa bu dee yow jàpp dara maa seen ndomba yi gaa yi gën a takkuwaat. gaa yi gën a takku wallaahi. gaa caaxaan baaxul. Mhm. nit ku nekk gëmal li nga gëm. dëgg la alxuraanu yàlla ji bu fekkee mënuñ ca faj suñu soxla. Mhm. ma xam ne kon yàlla tuuti na. wallaahi te inna allaha waasiun alim yàlla dafa yaatu. Mhm, dëgg la. dafa xam dafa yaatu. mën na lu nekk. mën na lu nekk mais yow nag bu ñu la bëggee jàppale si dañuy indi ay wax ay wax yu kenn xamul ay jinne la ñuy la fii kan moo fi jëflanteeg jinne. Mm-hmm. falax jinne la. <laughs> la. Mm-hmm. laqat jaakub jinne la. tawba jinne la. Uh-huh. alxuraan la ñuy jëfandikoo bu leer nañ. dëgg la yow kay neen neen xaw xaw ma ban yoon la ci gars yi di jaar ba seen aaju di faju uh-huh. bërki dem benn waaye doon am ah bi kay moom nanga fi ne nii moom nanga ma ne saa yi ne ko danga koy wax ak ñi nga xamante ne xamuñu yàlla. xamuñu yàlla wallaay. Mm-hmm. ma ne ko yii ñuy wax nii ma ne ko taxawul. ñun ñëpp ñun ñëpp bëgg a jub ah jubal ak jubbanti comme ni ko président Diomaye Faye waxee. Uh-huh. ñëpp ko bëgg ñetti ji yooyu. wallaahi jub jubal jubbanti. waaye nag wërsëg bi. Uh-huh. yàllaa ko yor de. yàllaa ko yor wallaahi jotewul ak yooyu dara. Uh-huh. fi ne nii xoolal bu yàlla waxee ne diw mii day tëdd. di am xaalis mënoo ci dara kenn mënu ko bu nekkee day toog di am xaalis mënoo ci dara bu nekkee day dox di am xaalis mënoo ci dara mhm. ku nekk am na yàlla bindee sa wërsëg dëgg moom nañ mhm. mhm. euh, bi ma ñëw ci produit yi am na ci benn nombre goo xam ni yaa ngi ko fi doon joxe muy nombre Umarul Xays lan moo nekk ci nombre bi waaw sëñ Modou Umarul Xays moom xam nga man souvent su ma waxtaanee ci benn mbir da ngay gis ci saa si gars yi commencé def tour du pot dëgg la di wëndeelu ci ci ci bi ci kii pot bi rek. Mhm. te duñu nangoo laal waajee. wallaahi. Euh, man damay wax ci xam-xam. Mhm. ma bëgg ku may weddi nga weddi ma ci xam-xam. dëgg la. waaw su ko defee Omarul Xaysi. Mhm. secret la boo xamante ni ñiy ut bayre jigéen. keroog nag wax naa ko nee naa nekkul ne nit ñi dañ koy wut ngir fo. ndax bayre jigéen moom yaakaar naa boo ko wutee ngir fo tamit ngay sonal sa bopp rek. dëgg la ndax jigéen ñi moom jaruñu bayre moom. waaw sëñ Modou. bu dee caaxaan rek la yitteel. saa boo jugee ngir caaxaan nekk caaxaankat bu góor boo gestoo ci sa wet di nga gis caaxaankat bu jigéen ngeen ànd di caaxaan. wallaahi jël ut baaxee de. te du la coûté dara. <laughs> Ah, kon bu ñu ko dee ut mooy. Mm-hmm. maanaam xayba bi mooy nit kiy def commerce. nga xam ne ay jigéen lay jëflanteel. Mm-hmm. am na ñoo xam seen commerce yëpp li ñu jaay jigéen ñoo koy jënd. dëgg la. wala waykat bi nga xam ne daa bëgg ay fans ndax jigéen ñi moom ku ñu fansoo rek léegi nga sa mbir dem. wallaahi yooyu ñooy wut genre bayra yooyu. Mm-hmm. maam ku leen gis te bayre tam du coow yi sëñ Modou yi ñuy wax ni mm-hmm. bayre mooy ki a gis am ci yow am ci yow xemem def mm-hmm. xam nga tey nit bu la bëggul duñ la jëriñ dëgg la da ngay koo xam tey ji day wax benn affaire rek waa ji génn xaalis may ko wallaahi cofeel gu mu am ci moom gi dëgg la loolu mooy bayre umarul xayis mm-hmm. moom nag mbind mi rek boo ko xoolee gis nga ko nelee na mu toll ak ndomb gi ñu koy liggéey yëpp caaxaan moo tax man damay wax ni leen nit na moo sa sëriñ bëgg naa faa ñëw mais affaire dafa cher affaire yi yaakaar naa fi boo ñëwee cuuraay bu yére vingt mille am na fi. Mhm. yére euh, trente et un mille neuf cent am na fi kon yooyu catégorie la. boo ñëwee ak lu sa doole tool voilà mais boo bàyyee yëpp état yëpp bëgg a boo xam ne nag xëy na egg goo fa. Mhm. da ngay yëg dafa metti mais méttiwul. voilà ndax. boobu deux cent quatre vingt treize mille lañ koy liggéeyee. macha allah ah, mais léegi bu fekkee sa doole yemul foofu te nga commencé ci bay jaay bu vingt mille. yu yem yi. Ah, di évoluer ndànk-ndànk. macha ba gis ne egg nga foofu nga wut ko. Mhm. incha allah. tubarkàlla mu ngi noonu mu nekk lu am solo waaye tamit ba léegi ñu des ci li nga xam ni euh, mooy càngat yi. Mhm. Euh, bu ñu ñëwee ci càngatu euh, cent vingt neuf. Mhm. mu nekk càngat bu am solo. lan mooy njëriñu càngat bi. waaw cent vingt neuf moom. ci secret waaqi la. ak ko iñakaar moom tam lañ ko liggéeyee. mbootu latif la ci biir tamit. macha allah ànd ak garab yoo xam ne nii ay waagu jaa nekk xeet garab yi lañ ko liggéeyee. Mhm. moom poudre la boo gisee nii da nga koy xeeb nii waaye xeeb nga xal mu lakk sa dàgga. Mhm. ko defee ci ndox daf ci suuf ko xorom parfum di ko laal. day mhm. ubbi sa bunt yi bu baax ci wàllu wërsëg. macha allah moom wërsëg rek ci lay dox. moom 45000 lay jar. kasaalika cangatu lem bi sëñ Modou gaa yi dañ ko mel lu bugg a fàtte fan yi ah, cangatu lem bi waaw ah, kooku sama waaja si gàmbi nee ma sëriñ bi del waxtaan ci lem gi lem gi <laughs> mhm. ko liggéey ci ni ko waxoon tobb mhm. ak soto aljana moom lañ ko liggéey ak lem gi moom ah. dafa da ngay sotte ci ndox mi rek yëngal sotteeku mhm. waaw sa yaram di neex ngay am xaalis macha allah trente cinq mille lay wecci ko te mu dafa sakkan mën nga koo am sax di ko bokk ak ay nit tubaarkàlla incha allah ñu jeexalee ci pàcc yeeslu bi waaw boobu mu ma daj dëpp kii. léegi rek sëñ Modou maa ngi jot benn témoignage benn soxna léegi rek. Mhm. waaw ci yéeme yi ma wax ci pag bi. est-ce waaw nga xamante ni loolu moom yaakaar naa dama cee booy moo tax dama koy taayee di la ko envoyé. naa la moo dëgg waaw parce que mhm. gis ko am dafa tawat. yaramam neexul mu tëdd ay ay fan wala ay weer wala at. Mhm. nga gis mujj gi mu na la ah man kat damaa bëggoon maanaam eh, ci pag bi nga jox ko ko mu ne la ah, pag bi de bu ñëwee ba léegi macha allah. gis naa sama yaram oyof na. def na nii def na naa gëjoon naa jaay comme femme loolu ne moom mu ngi daan estati chaque jour. Mhm. mais du gis ko ne ko ñaata. waaw ah, xam nga léegi ñëpp ay di jaay mais da ngay gis koo xam ne dem ba day découragé. dëgg la <laughs> <laughs> mhm. mais nag wax dëgg allah fan mi ngi commencé soppeeku naa ma alhamdulilah. macha allah mhm. sëñ Modou. la sëriñ bi waxoon yaa rabbi in aataytani fa shukru. wa in manata faridan wa sabru. mun fa laa nekk de sëñ Modou. dëgg la wallaahi lazim seppi naa sama loxo. ci li xew. man li ma gëm mooy ñaan yàlla moo koy nangu. dëgg la xam-xam nag nit da koy ut ba am ko. Mm-hmm. mais ñaan moom yàlla moo koy nangu. li may def tamit du ci weddi sama bopp ndax man loolu laay def di ko gis. Mm-hmm. man maay cobaye bi numéro un. wallaahi sëñ Modou su ma ko gisul du ma ko wax. dëgg la su ma jëfandikoo woon gisuma. Mm-hmm. man xam bu ma jëfandikoo ci sama yaram te gisuma ki dara dama koy teg na la. koy teg wallaahi. mais ma ko gisee ba ba jëfandikoo ko ba gis ko. ah ma ko keneen waxee dinaa ko defal. léegi nag des mooy yàlla mooy nangu nag. dëgg la sëñ Modou. Mhm. mën naa def lu baax ci sama yaram man. ma defal ko nit mu jàpp kee fa ko kee mu jàpp ma jox ko kenn mu échec. mu échec wallaahi. mais est-ce que day tax ma weddi. déedéet ma weddi nag. Mhm. ndax tey produit bi may jox nit ki léegi nii mu am ci ak satisfaction ba sant ci yàlla ba ñëw njukkal ma ci wala mu génn alalam utaat la ñaan. Mhm. mën naa ko jox keneen du dox. dëgg la mu ngi mën nga dem ci pharmacie bi jënd fa benn boîte. comprimé naan ko. sa bopp sedd. dëgg la nga yow am kuy jàmbat boobu metti nga roccoo na ko dem bii laa naan nga jox ko mu ne moom seddul ba léegi. Mhm, day am ah? mhm. léegi kon nag il faut ñu xam ne yàlla mooy nangu. dëgg la sëñ moo discours bi may wax nii. même ku ñëw fii balaa maa jël sa fukki dërëm ci la ñuy waxtaan. dëgg la yàlla ay nangu de. Mhm. waaw nekk moo fi dem di wut ay lay man du ma lay. dama lay jox dara nga dem gis naa ci sama bopp alhamdulilah. nga dem a gisoo sama bopp ma dem xooli leneen lu ma. sëñ Modou man wuruju ma. triyawu ma propagande ma. dëgg la alxuraan daal laa yëm laa gëm. Mhm. te moom laa am te moom laa wóolu. Mhm. li may def yëpp ci laa koy def. macha allah léegi nag lii may wax. ku mu mhm. dal sa xel bismillah ku mu dalul sa xel épargne toi. <laughs> noonu la ko tubaab di wax. <laughs> mu doon ay kàddu yu am solo. macha allah sëriñ bi am na ci càngat boo xam ni it gaa yaa ngi koy suggéré fii. muy càngatu fatxul mubin. boobu daa mel ni gis nañ cee wax fan yii. waaw fatxul mubin. moom tam càngat gu yéeme la. tubaarkàlla. waaw yaakaar naa liñ ko fi joxe nag bëreegul ndax ay ñett ba ñeenti client ah mais amaguñ ci échec de macha allah. macha allah ndax euh, kenn ki France na nekk dina ma déglu nii. du mu jaar ci ay tour nag. dëgg la mais bi mu ko laalee gis na bunt yi mu ko ibbil. Mhm. ndax toogoon na liggéeyul ah mu dem ba mu liggéey bay xalaat taxawaatal entreprise boppam. macha allah. te kooku mën na ma seere. dëgg la keneen ki aussi mi nga Belgique. yi mhm. nga ko ko joxee. ah am na examen bu bu jafe bu waroon a jàll te jàll na ko war def formation ba war a commencé def formation. Mhm. keneen ki tamit jox naa ko ci biir dëkk bi fi la nekk. waaye ah, moom tam fa tabaarakala kooku moom mooy moom mooy sunu témoin numéro un. waaw ci biir ah, réew mi waaw moom moom macha allah loo ko jox rek dafa nekk nit ku gore nag ku laabir. macha allah loo ko jox rek. Mhm. da ciy def ay waaw ah, te ci euh, métier livreur ci la nekk. waaw mhm. kon yëpp kenn ku nekk xam na li may wax. moo tax càngat boobu sëñ bi dafay ibbi buntu. Mhm. fatul bu biin li muy tekk mooy ibbeeku gu leer. dëgg la. Mhm. Mhm. xam léeg-léeg moom nga laal loo xam ne doo fi nattam naan li ma laal. moom wallaahi baaxul voilà nag moom li koy liggéeyee dafa nekk ci diggante Faatiha Rabbana Ifta ak Zuyna. moo tax suñ paree nag doo jël garab yi ñu koy boole def ko ci ak parfum yi. macha allah moom moo jar cent vingt cinq mille. cent vingt cinq mille. tubaarkàlla mu ngi noonu mu nekk ay produits am solo li may faral di wax rek produit yi moom. Mhm. macha allah yaatu na fi lool ku ci nekk nag boo ñëwee am na loo xam ni tolloo naag sa am-am waaye tamit mën na saafara sa bëgg-bëgg. Mhm. bu ko defee sëñ bi boo ngeen ci waxtaanee rek dina la jox bi nga xam ne moo gën ci yow. Mhm. sëriñ bi gaa nekk mbuur. cabinet bi foofu yaakaar naa ni wax dëgg yàlla gars yi bëgg nañ ci ñëw bi nga xam ne cabinet bi na foofu. lan ngay wax ci mbokk yi nga xam ne dañ lay yittewoo te nekk ci côté Mbour wala yu jege dëkk boobu noonu waaw sëñ Mour cabinet bi nekk Mbour moom. Mhm. comme bi nekk Kër Massar. même fonctionnement la ñoom. Mhm. bépp garab boo soxla fii ci Dakar. bu mhm. contacter waa Mbour am nañ ko. macha allah. cabinet bi aussi man mercredi ak jeudi laa fay nekk. àllarba ak alxames laay nekk Mbour. di gis nag ne su ma fa ñëwee li cëpp di nga gis Petite Côte bi ay Ndangaan Samba. Jaajaay ak ak Touba Euh, Sindiak. Mm-hmm. côté yooyu Fissel Mbadaan da gis ñoom ñooy gën di ëpp li ñuy ñëw foofu. Mm-hmm. kon gis nga ne noflaay la ci ñoom. macha allah kazaalika waa Mbour ndax cabinet mi ngi nekk ci Sali Carrefour. Mm-hmm. ci entrée Mbour bi la nekk Sali Carrefour eggul sax Sali Portudal. kon. Mhm. Sali Carrefour ci école Thierno Cheikh bi mbedd boobu ngay dugg rek nga gis tableau bi foofu incha allah. macha allah sëñ Modou kon su ko defee ñu bàyyi ko xel. Mhm. képp kuy commandé dara Dakar. su la neexee nga woote direct foofu mu gën a jege. mu jege foofu. su la neexee tam boo commandé Dakar ñu livré la ko foofu mu gën a jege incha allah. tubarkalla waaw comme ni ma ko waxee rek mercredi ak ak jeudi àllarba ak alxames. macha allah fay mhm. ah, ne a ndax léeg-léeg àllarba ak ma nekk ci programme boo xam ne ma a. parfois nga xaw a tënku. ndax mhm. a jege si nii. Mhm. ma faa mhm. mu ngi noonu euh, xam naa ma jël quelques questions rek ndaxte mu ngi insister fii ci TikTok bi kii day laajte ndax booy sangoo saafara. da ngay summeeku da ngay jiitlu. waaw loolu waxoon naa ci sëñ Modou. kii sangoo saafara da ngay xam nga nit ñi dañ lay créer yu kenn xamul. wallaay. nan mhm. la ay saafara buy laal sa awra lu gën a fi génn fi. Mhm. mais sëñ Modou awra du sobee. dëgg la. loolu dama ciy insister. Mhm. awra du sobee. bërëb génnukaayu sobe la. dëgg la. tant que sobe génn bu fa kay am benn problème. nga war a sangu. macha allah parce ci cër la boo xam yàlla moo la ko jox. mais bu ñu nee booy sangu saafara xaw ma warul laal sa awra nangam nangam loolay wax la rek. waaye léegi exemple boo jëloon saafara naan ko. ndox la ndox la jaxasoo ak ndox mi ak dëgg la doo ko doo ko sawaat <laughs> siru bi mooy des waaw dese bi dem mu ngi noonu yàlla xam na li muy def mhm. kon yooyu buñ ci bu ci buñ ci attardé woo macha allah ab calcium benn simbang bu gàtt ak ay yooyu yëpp <laughs> ay wax la rek kuy sangu saafara daal mhm. te da ngaa bëgg barke ci sa yaram yëpp na fépp tooy macha allah waaw mu ngi noonu tubaarkàlla mu nekk lu am solo am na mbokk bi laajte benn question sax waaye xam naa ni mm-hmm. du ñàkk nañ ci mës a ñëw moom mu ngi laajte rawxaan bi maye xaalis <laughs> rawxaan bi maye xaalis <laughs> ne ne ko na jàpp ci turu yàlla yi turu yàlla yi waaw ah, man moom laa koy digal macha allah boo amee yàlla mm-hmm. li li góor gi daan wax la le am de Dieu chercher le royaume de Dieu mm-hmm. macha allah wut leen nguuru yàlla comme nguuru yàlla gi ñàkkatul dara te ndax boo nguur yàlla googu ci la rawxaan yi nekk xuddaam yi jinne yëpp ci nekk. moo tax teel yàlla rek. noonu laa lay conseillé. macha allah bul yàkkamti teel yàlla. Mhm. Mhm. yaakaar naa ni li ñu dese ñu yegg ci le bareetul mhm. mën naa ne di jours mooy 8 ci jamono ji ñu toll nii sëñ bi bés ba yegg si na ba pare daanaka. muy le la la la la kii la père waxoon waaja. ne ko ah mbaa di nga ko def. Mm-hmm. <laughs> mbaa di nga ko def lépp uh-huh. lépp loo jàppal bis. Mm-hmm. jàppal na egsi na. wallaay loolu la ko waxoon de. dëgg la waaye ñun tam jàppal ne sëñ Modou mbaa dinañ ko def. <laughs> waaw <laughs> macha allah sama sama sama sama waajur ma war a nettali suñu benn mbokk. Mm-hmm. comme suñu kër këruk famille woon xam nga këruk chauffeur. Uh-huh. day nangoo xumb. léegi nee nag bu ñu taalaan ataaya nii trois heures bu añee pare. nga gis mbooloo mi di ñëwandoo par benn benn. Uh-huh. xam nga nee ba bu jékki-jékki gis mbooloo mi wër baraada bi mu jékki-jékki ko Cheikh mbaa di nga ko mën. mbaa di nga ko mën wallaay. wallaay doo ko mën de lii ma seen doo ko mën de. Uh-huh. waaw maanaam <laughs> war ne ko baraada bi tuuti na par rapport ak mbooloo mi. ak mbooloo mi. Uh-huh. ñu ni tamit ñu ngi laaj mbaa dinañ ko mën. incha allah rabbi incha allah taala yaakaar dinañ ko mën ndax lépp yàlla moo ko yor. Uh-huh. kon le 28. egg si na ba noppi. macha allah kon incha allahu taala. képp koo xamante ni bëgg ngaa ñëw ci la 28 avril. bis bi mi ngi amee Kër Mbay Fall. Kër Mbay Fall. Uh-huh. Kër Mbay Fall. Uh-huh. arrêt jumaa ji soo ñëwee ba arrêt jumaa ji nga jégg passerelle bi. Uh-huh. wàcc fi gaaru teer bi noonu. kalandoo yi taxaw foofu koo ci laaj kalandoo bu jëm Ridis. Ridis. nga dugg ca fay fanweer dana la yóbbu ba ci kenkaayri Ousmane Ndiaye. nga wàcc kenkaayri bi di nga gis barab bi. macha allah numéro téléphone yooyu itam boo ci woote rek. danañ la indiqué. tubarkalla sëñ Modou nag bis bi comme ni ma ko waxee journée la. suba lay tàmbali ba ah macha allah baax dana am ndékki dana am hmm. añ dana am reer tubarkaal dana am waxtaan yëpp hmm. yi nga xam ne dina soxal nit ci diineem hmm. ci xam-xam kasaalika tamit amul folklore du bisu folklore de dëgg la bis boo xam ne bisu jaamu yàlla la loolu ko ñëpp xam waaw suñu noppee ñu dagg ay dogu zikar moo xam latif xasbala salaatu ala nabi lu waaye mën rek ñu def ko ñaan ci yàlla macha allah yàlla faj suñu aaju suñ paree nag ñu dugg ci programme bi. Mhm. sëñ bi da ngaa wax lu am solo. Mhm. ci bés bi. Mhm. te yaakaar naa ni Sénégalais dañoo bëgg lu leer. ma bëgg rek li nga waxoon sànq nga baamuwaat mu mën a ñàkk daal. <laughs> maanaam li ma wax mooy Kër Mbaye Fall fa la bis bi di amee le 28 avril. tomboog di dimanche dimanche suba bi kon bu dellusee lay. bu dellusee incha allah ku ñëw ba ci arrêt jumaa ji. da ngay raay bi. maanaam da ngay jéggi passerelle bi wàcc ci gaaru terre bi mhm. nga laajte yan kalandoo ñoo jëm ridis foofu nag damay bañ nga dugg fa assurance wala nga dugg fa tool jazz ridis nga jël kalandoo bi ne ko mu may la ci kenkaayari Ousmane Ndiaye mhm. wàccee kenkaayari Ousmane Ndiaye mook barab bi di benn di gis sax di dégg baas bi ak alxuraan ji di jooy macha allah taala tubarkalla ñu bàyyi ko xel mhm. beneen bi aussi mooy li ma wax rek journée la boo xam ne journée folklore journée jaamu yàlla la. jaamu yàlla toujours uh-huh. la bu ñu tuddee ma sàmba wala ma demb kon loolu leer na sëñ Modou. Uh-huh. kon li ma bëgg nag mooy bis boobu ku ci teew nga am yéene bu réew bu rafet ak pas-pasu ne aajo yu bëri mën na fa fajoo. tubaarkàlla beneen bi aussi mooy sëñ Modou comme ni ma ko waxee woon at mu jot. Uh-huh. ca ngatu ay xasun. ay xasun dañ ko fay maye at mu jot. boobu mooy jar ñaata. deux cent vingt cinq mille. est-ce que. soo <laughs> defee nag. danañ ko def ci yu mag. jox ko butéel ah ku ñëw am ci sa wërsëg. macha allah kazaalika tam bëgg nañ faa maye garabu ndoxum siti ak hémorroïde. Mhm. loolu tam bëgg nañ ko def. incha allahu rabbi incha allahu taala. Mhm. kon nag li ñu bëgg mooy képp koo xamante ni am nga pas-pasu ñëw. Mhm. na nga a waajal sa bopp. mu waajtaay bu jekk am maanaam am pas-pasu. Hmm. jëriñu ci bis bi macha allah xam nga maqsad dafa am solo moo hmm. jubluwaay nga xam ne maa ngi dem ci bis bi fas yéene naa bu ma demee sama aajo faju dëgg la parce bis yi ñuy dem yëpp dafa yaakaar aajo lii rek li nga fay def wala sax lu ko gën a néew hmm. jàng alquran zikartu yàlla bernde waxtaan ci yàlla ak ak yonenteem suñu demee ba ngoon nag foofu day neex ndax borom xam-xam yi fa teew yëpp dañuy génne seen xam-xam di maye kon daal maanaam kuy ñëw na a xam-xam boo la ñor rek. Mm-hmm. bu ko waaj waxee ci tableau yi ba jàngale ko noteel. noteel macha allah sa téléphone di enregistré boo eggee lu la ci lënt. Mm-hmm. nga toppaat ko. incha allahu taala macha allah kon loolu nag sëñ mm-hmm. ah, ñu bokk ko waajal incha allah yàlla na yàlla ñu fi fekk ak tal incha allah. macha nga xam ni danañ am yéenay teew te mënuñoo teew. su ko defee rek dana jàppandeel dina jàppandi ci bi. en direct lañ leen defal. en même temps it bu jàllee ki nga xam ne a seetaanaat. mu nekk événement bu am solo waaye sëriñ bi ma ñëw ci euh, secret bi nga xam ni euh, tey jii bëgg nga koo may mbokk yi nga xam ne ñoo lay topp. Mhm. waaw sëñ Modou. Mhm. tey nag dama ñëw ci sóoratu taxaabuni. Mhm. sóoratu taxaabuni. saar la bu baax ci kaaraange. kaaraange. maanaam sëñ dafa am ñoo xam ne dañoo vulnérable. xam mooy loo loola tisati sax nga nga daanu. wallaay. <laughs> xam nga day am. day am nit ñoo xamante ne tey xam benn waaye wax laaj na ma ndax nopp mi nga am ba léegi ndax mënatoo nopp kenn ba jàpp ak mën a wax déedéet. Mhm. nit ñi dañoo bàyyiwul seen bopp léegi. dëgg la day sangatu di takk. Mhm. kon foo jógee rek def say nopp say bët dox wadu doxaa di mu jàpp du yomb. <laughs> waaye am na suñu xam ne sëñ Modou noonu lañ woyofee bopp. Mhm. maanaam yow boo bindoon alxaytu donc sëf ko rek ñu ñu seen bopp yi commencé mel. wallaay attanuñ <laughs> attanuñ dara dara léegi nag yooyu boo bëggee mu mu wàññeeku ci yow. ngay fexe nga booster sa yaram nag. surtout taxaabun noonu la mel. soo ko bindee ba mu ba mu noppi nga wut déggi sump mhm. hmm? ak déggi kàdd nga boole leen bu nekk nga ut ci onze rek onze dëkk mhm. takk ko ba mu kii nga def ko si benn si biir saafara si mhm. nga sàngoo ko onze jours nga xool macha allah waaw dafa lay booster ba nga xam ne ay caaxaan du la gaaw a foq tubarkalla incha allah mu nekk lu am solo sëñ bi xanaa ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk yi rek waaw sëñ Modou ñu ngi tàggatoo rek di wax in urida ilal islam mastataatu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa نسألك يا من هو الله الذي troisième édition journée sant ak tudd yàlla sunu borom subhaanahu wa taala Serigne Malick Guèye mu baax mi di ko amal foofu ca Kër Mbay Fall mu ne nag at mi jàpp nañ ko dimanche 28 avril 2024 bi ca Kër Mbay Fall mu ànd ci ak cabinet Sajaratu Touba groupe whatsapp bi rawatina mbok yi ak soppi yi ñu sant ak tamit tudd yàlla sunu borom subhaanahu wa taala dimanche lay doon ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril bi 2024 bi ca Kër Mbay Fall ñu sant ak tudd yàlla sunu borom mu ne ma nag programme bi nii lay tëddee fukki waxtu bu jotee jàpp midi daañu amal njàngum alxuraanul karim midi jàpp ñaari waxtu ñu siikër turu yàlla ñaari waxtu jàpp ñetti waxtu ñu amali ay xéewal maanaam bernde gan yi ñeent jàpp juróom-ñaari waxtu ci ngoon gi ñu waxtaane nag ci xam-xam ñaan yàlla sunu borom mu nangul ñu bépp ñaan kon mbokk yi xarit yi troisième édition sant ak tudd yàlla sunu borom Serigne Malick Gueye ànd ci ak képp koo xamante ni Ajaratu Touba rawatina sunu groupe WhatsApp di ko amal dimanche 28 avril 2024 bii foofu ca Kër Mbay Fall képp ku ci bëgg a am leeral mun nga woote ci 77 539 19 04 77 539 19 04 mbokk yi xarit yi rawatina mbokk jullit yi ñëw leen ñu sant waaye tamit tudd yàlla sunu borom yeey mbokk bu ko kenn wuute. الواجد الماجد الواحد الصمد القادر فبوحدك